Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 5 mars 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñu jógee ci li nga xamante rapport mooy dialogue national bi jébbal Macky Sall dañuy ci projet ba nga xamante ni Macky Sall daal dina ko soulever foofu dialogue bi loi d'amnésie. loi d'amnésie nag muy benn fait boo mars 2021 ba 2024 képp koo xamante ni la manifestation mu jëm ci wàllu crime wala lu mu mënta doon rek dañ la koy jàll di Qui ci biir loolu loi d'amnésie boobu ñu adopté woon ko foofa ci conseil des ministres alarba bi ñu génn nañ jàpp ni que daal lii di loi d'amnistie bi ki di Macky Sall dévoilé na lépp lo xamanteni manam maanaam motif la bu wara tax mu sàkku dal ñi dal di adopté li nga xamanteni moy loi d'amnistie bi pour ñu jéggal képp ko xamanteni yaangi won ci kasso ba wala bokkon nga ci fee yoyu ba dara dootu la topp ba tay suñu sukkuliko ci ki nga xamanteni moy le président de la République euh, du Sénégal monsieur Macky Sall mom dal jall na ci acte bi nga xamanteni ni mom le la tenir jaarale ko ci benn apaisement bo xamanteni ni dafa jëm ci espace place publique sénégalais bi ginnaaw bu mu jëlee lii di décret madame le premier mars mu porte ko daal di présenté lii di projet de loi d'amnistie ci benn texte bo xamanteni tay dañ koy soumettre ki di assemblée nationale mu dal di viser li nga xamanteni moy exposer exposé jëm ci motif yi nga xamanteni mo wara war amnistier ay infractions yo xamanteni def nañ ko fi ci Sénégal ak à l'étranger ginnaw lolu mu dal di couvrir ci période yi nga xamanteni manam dafa jëm ci 2021 et ba li nga xamanteni moy 2024 muy rapport bobu ngeen xamanteni gis ngeen ko mo ngi nonu ñu présenté leen document bi ci biir document boobu nag Macky Sall jëlu ci dara lu li nga xamante ni ci benn apaisement dafa climat politique ak social di renforcer dafa jëm ci cohésion nationale consolidation jaarle ko dialogue national bi bi nga war nañu permettre ñenn ci ay nit yi nga dañu ay ak yi nga xamanteni moy justice de participer ci li nga xamanteni moy pleinement lepp lu jëm ci walu mettre en œuvre l'idée di dundu démocratie kii di monsieur le président de la république Macky Sall dafa dégg dal mom dal dafa war poursuivre lepp lo xamanteni ni dafa war mise en œuvre jaarale ko ci ay mesures jëm ci décrispation ak li nga xamanteni moy ay droits de grâce yo xamanteni ni li di. constitution bi daal dina koy reconnaître mu daal di surcroît jaarle ko ci volonté bi nga xamante ni législateurs yi ñoom toujours dañu nekkoon pour favoriser li nga xamante ni mooy exercice bi nga xamante ni mooy démocratique jaarle ko ci benn contexte boo xamante ni waxtaan moo ko laloon ubbi ci li nga xamante ni mooy politique ba noppi daal di koy traduire jëmale ko ci bépp adoption boo xamante ni loi bi porté na ko ñu daal di amnistier bépp infraction criminelle ak lépp loo xamante ni correctionnel la nga xamante ni sukkandiku na jaar la ci ay liens d'événement politique yoo xamante ni tey ay conflictuel la ba noppi jaar ci li nga xamante ni tey moom la ñëpp poursuivre daal di engagé ci kanamu li nga xamante ni mooy juridiction yi ba noppi daal di aboutir ci lépp loo xamante ni tey ay condamnation la yoo xamante ni dafa entraîner ay incapacité ba noppi daal di indi ay déchéance yu lié ak ay droits yoo xamante ni tey mën nañ jàpp droit de vote la ak droit d'élection ba tey suñu sukkandikoo ci esprit bi nga xamante ni présent projet bi muy loi bi intervenir na jaar di amnistier lépp loo xamante ni tey ay infraction commise le le ko fi ci Sénégal ak à l'étranger mu dal di couvrir li nga xamanteni moy période bi joxoon si duggante mars 2021 à 2024 qui ak 2024 ci diiru loolu nak ki di législateur bi lu mu bëgg manam moy privilégier benn voie boo xamante ni dafay en pleine li nga xamanteni moy droit ak benn caractère général bo xamanteni bu anonyme la le ko ci ay champs d'application ak li nga xamanteni moy large

amna fi ci mars 2025 ba 2024 bokk na ci muy lan muy yoo xamante ni ay affaire crime la rey nañ fi ay nit ñooñu ñëpp dañ leen di jéggal muy lépp loo xamante ni maanaam dafa permettre nit ki ñàkk droit civique am dañ ko koy jéggal kon nañuy jàpp ni que daal en grosso modo loi bi concerné wul kenn ku dul kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak Pastef boobu nga xamante ni mooy Pastef su ñu génnee ci biir loolu dañuy jàppali que mars deux mille vingt un ci ay woote Ousmane Sonko la ñu gis lu toll ci juróom fukki nit ñàkk seen bakkan fii ci Sénégal ñu gis fi ay nit yu bare ñàkk seen alal ñu gis fi ay biens publics yoo xamante ne Macky Sall moomu ko ay doomu Macky Sall moomuñu ko mbokki Macky Sall moomuñu ko ñi bind loi bi moomuñu ko ñu nekk assemblée nationale di ko voté moomuñu ko ñun askanu Sénégal yépp ko bokk ñoo ko moomandoo suñu alal la Macky Sall nag dañ ko dénkoon cinquante sept virgule huit pour cent au suffrage universel maanaam en pour que mu diriger ñu suñu réew ñu def ko chef suprême de la nation garant de nos institutions ci biir loolu nag yaakaar naa ni tey président Macky Sall dafa pour violer suñu loi ñun peuple sénégalais ndaxte ku dégg ci biir lii nga xamante ni dévoilé nañ ko ci projet loi d'amnistie bi su ngeen gisee ma lire ko parce que am na ñoo xamante ni jànguñ luy fait criminel boo xamante ni na ci mars 2021 mille 2024. Madame, de ba deux l'eau, vingt quatre maanaam dañuy effacer loolu yëpp dañu leen koy jéggal defuñu dara. première injustice tegu na ci ñi nga xamante ne tey ñoo ñàkk seen bakkan ñoo loru première injustice teguwaat na ci ñi nga xamante ni tey ñoo ñàkk seen alal ci manifestation yi beneen injustice mooy ñi nga xamante ni tey dem nañu au chômage grace à ces manifestations ci biir loolu nag am na ay tuuma yu jógee ci côté bu nekk ñi jàpp nañu Ousmane Sonko ak ay ñooñam la ñoom ñoo woote woon appel à l'instruction ñoom ñii nga xamante ni ñoo jiite woon réew mi di président Macky Sall ak ay ministre am ñoo taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi nee nañ dafa am ay forces occultes am ay terroristes yoo xamante ni commencé nañu présenté wu fii suñu réew te kenn duggul leen fi lu dul kii di Ousmane Sonko ba tax ñu faat juróom fukki nit ñooñu juróom fukki nit ñooñu seen i ay waajur ñu ngi toog ba tey jii xamuñu ndax. force occulte yi ak ñi bokkol ci manifestation yi ñoo ray seen doom wala ñi ñu jappé won ay nervi te ñi ne état bi mo leen recruter ñu duggal leen ci biir ñu gissone fi L200 bi nga xamanteni yabon na ay nit xamuñu ay policier lañu xamuñu ñan la loolu yëpp dara leeru ci xamoguñu kan moy def kan mo deful ñi ne tay dañuy amnistie ñëpp je crois que tay ñi ngi jéma créer ben tension bo xamanteni ni ci biir lu muy jural Sénégal mo ëpp musiba ka tay limu mëna fajal Sénégal loi la nag boo xamante ne tey jàpp naa ni loi gàcce la président Macky Sall bañ ko dénkee Sénégal ba tey ñëpp nee nañ ko gàcce ngalaama lenn rek mooy tâche bi moo ñuul ci soowam mooy projet de loi d'amnistie bi xamuñu nag lan moo ko ci yëkkati ak lan moo ko ci dugal ndaxte tey ñii ñu tuumaal muy parti Ousmane Sonko ak Pastef dañu taxaw ne carrément que état daf leen di jaay doole pour xañ leen ñu bokk ci élection yi tey loolu atteeguñu ko. leeragul ci bopp nit ñi ñu ne am amnistie ñu fee yëpp ëllëg ak ci biir ñooñu dañu xool seen taxawaay ci Sénégal ban position lay doon dañuy taxawaat ci Sénégal yor benn discours xamal ni que lépp lu ñu leen doon wax dëgg la mosu ñoo def dara ñoom ñoo ñu tuumaloon ñoom ñoo ñu accusé woon ñoo ñu jaayoon injustice ñoo ñu jaayoon dictature tey ñoom ñoo ko teggiwaat ndaxte amul benn justice boo xamante ni tey taxaw na condamné Ousmane Sonko wala benn nit boo xamante ni jàppoon nañu ci kaso bi ñu ne yow yaa def nangam wala defoon nangam. je crois que nag dañu war a am raison garder tey suñu demee ba toll ci Sénégal mu war a état de droit nekkatul état de droit état de politique politicien la politiciens yi ñoo fi nekk di dicter seen loi di def seen loi nu mu leen neexee su leen neexee ñu jaxase réew mi su leen neexee ñu déggoo war seen biir ñu daal indi dañuy génnee li dañuy génnee li ana séparation de pouvoir tey kii di président Macky Sall ak loi d'amnistie bi nga xamante ni gàcce la crime la amul benn sénégalais bu ko bëgg tey donc doon compter sénégalais yu ko bëgg matuñu juróom-ñett je crois que nag ni soo nekkee njiitu réew ngay jël benn projet de loi du ko adopté sa ça sa askan bi nga xamante ne ñoo taxaw à la défendre la film ñu la doon chaque jour le la néewal nous ñooñu taxaw de la défendre je crois que on war nga loi njukkal ñooñu mais tey un président Macky Sall de famille de faire trahir le peuple sénégalais man sens je dirais que le président commence à trahir le peuple sénégalais à travers cette loi d'amnistie beneen bi ci top lan kii di président Macky Sall dafa dés euh, indi désaveu maanaam dafa weddi ñii nga xamante ni ñoom ñooy ay magistrat am dafa weddi ñii nga xamante ni ñooy ay procureur am dafa weddi ñii nga xamante ni tey ñoom ñooy ay juge je crois que suñu tolloo ci benn état ba président di weddi ay juge am ak ay magistrat waroon na leen bàyyi ñu eggale seen liggéey ba pare suñu eggalee seen liggéey ba situer les responsabilités moom président de la république yàlla may na ko màkkaan bi nga xamante ni jox nañ ko lii nga xamante ni mooy état de grace te bind na ko ci biir euh, motif yi maanaam te constitution reconnaître ko mu jël ci grâce am boobu daal di leen jéggal su ko defee famille parent bu nekk yi nga xamante ni ñàkk nga sa doom nga xam ne liw mi mooy responsable ci sa doom jii nga ñàkk bu mu fàttee ni que am na ñaari mineurs yoo xamante ni bërki démb dañuy ñàkk seen bakkan ci benn oto muy biir sata ngeen def enquête jàpp ci lu toll juróom-ñett ba keneen ki mi ngi woon foofu Pennsylvania ci benn euh, champ camp boo xamante ni Nicaragua la jaar ba ngeen di préparer extradition tey ngeen jóg ngeen ne loolu yëpp baal nañ leen te ba tey jii saxooguñu ci kanamu benn attekaay tey policiers yi nga xamante ni ñi ngi doon jàkkaarloo xale yi ci mbedd yi ci biir manifestation yi di si les lacrymogènes tey su ngeen jéggalee ñëpp ñu tey seen digganteeg policiers yi dootul neex ndaxte dinañu xool policiers yi beneen bët boo xamante ni ñii ñoo leen tooñ alors que ñun Sénégal xamooguñu kan moo tooñ ak kan moo tooñ je crois que nag tey li Olof Njaay di wax la rek sénégalais ñoom ñoo war a yeewu ndaxte policiers yi dañu bëgg a monopoliser ci seen ay intérêt personnel ci seen ay njombe la ñuy jógee pour créer ay affaires yoo xamante ne taxawul mais jàpp naa ni que tey gàcce weesuwul tey ci Sénégal ci démocratie Sénégal ak àdduna wërngal këpp nit ñuy xoolee ak presse étrangère bi nga doon wax nañu toppatoo ci seen affaire taxaw gis ni fa yow say procureur taxaw def benn point de presse cumulé ñoom ñëpp. ñu jël ay chef d'inculpation teg ko ci ndondu ay doomu aadama ñooñu atteegoo lee leen nga ne tey da leen di jéggal defuñu dara kan moo nee a jéggal leen kan moo demande njéggal njéggal nag kenn bañu ko mais na fekk ki def reconnaître man maa def ba pare maa ngi demandé njéggal na fekk aussi ñi def ñu identifier leen ba teg leen ñi xamal ne que ñii ñoo def lii ñi ñu yàqal ak seen i njaboot xam na ne que ñii ñoo def lii xëy na dañ ko defe woon ci coobar li si ay jullit lañu ay euh, si yàlla la ñu wékku te yàlla moo nee tooñ leen ma baalu ma ma jéggal leen ñooñu bind lettre daal di baalu ñoo ñu am xolu yërmande daal di leen jéggal Macky Sall bërki démb ci rapport élection yi ñetti nit ñoo ñàkkaat seen bakkan benn étudiant foofu ca université Gaston Berger tey jii kooku suuf seddagul ci kawam xamuñu kan moo ko rey xamuñu force de l'ordre la xamuñu manifestant la xamuñu force euh, occulte la xamuñu euh, ay terroriste la tey nga ne jéggal nga ñooñu est-ce que famille ñooñu jéggal na ñooñu Macky Sall soo yëkkati woon ay milliards jébbal ko njabootu ñooñu wala famille ñooñu du sax nga ndàmpaay leen ba fàtteel loon seen naqar wala seen siis député yi nag assemblée nationale lañ leen voté wootalee kan moo leen woteel le peuple sénégale ñoom ñoo war a voté loi bi ñoom nag nañu xam ne ñu am nañu une lourde responsabilité devant le peuple sénégalais bu ñu fàttee le président Macky Sall li ko fi desee mototul benn weer su doon ci weeru koor lañu nekk mën nañ jàpp Macky Sall mi ngi woor wàcc

bëgg a effacer les balais yëpp en tout cas doy na waar liñ ci mën a xam daal mooy mooy président de la république du Sénégal sénégalais yi ñoo ko doyoon mu wooteel ko mu fal ko liggéey na nag ci Sénégal kenn du ne liggéeyul investissement def na ko ay réalisation def na ko yóbbu na turu Sénégal fu nekk waaye dafa dem ba war a génn bëgg a génnee Sénégal ci gàcce te gàcce boobu benn Sénégal du ko d'accord man personnellement je ne suis pas d'accord opposition bi nga xamante ni ñoo gënoon radical ak yow d' ci sa loi d' amnistie su dee Ousmane Sonko moo la demandé loi d' amnistie boobu nag bind la lettre xamal ne que sénégalais yëpp moom moo demandé loi d' amnistie président Macky Sall da ngay dem sa yoon da ñuy bàyyiwaat ak Ousmane Sonko da ñuy bàyyiwaat ak njabootu Ousmane Sonko tey yaa ngi leen di permettre ëllëg ak ci biir li may wax tey xëy du ngeen ko gis mais bés bu loi d' amnistie bi jàllee ëllëg ak ci biir ndax naa ne monopoliser la parole te lenn la ñuy taxaw li ñu doon jiiñal yëpp génneel preuve bi la wane ñun ñoo def te kenn du ko Sénégal kenn du ko génnee te kan moo jur cause boobu mooy président Macky Sall day fekk bay wéy na mbuus Macky Sall lem na ay bagages am jël njabootam jël ay soxnaam dem yoonam fu ko neex mu dem kon donc je crois que lii nga xamante ni projet de loi d'amnistie bii nga xamante ni tey président Macky Sall daal dina koy dévoiler foofu tey ca assemblée nationale député yi tey lañ ko war a saytu nañu jàpp ni que am une lourde tâche devant le peuple sénégalais ñoom député député yi nañu xamné ni ka Macky Sall falu len Macky Sall falatu len dañu ànd ak Macky Sall bok ak mom ben parti ci parti bobu la askanu Sénégal juk dal di len fal bi len askanu Sénégal falé askanu Sénégal tay taxaw nañu ak yéen wax nañu ak yéen ci radio yi wax nañu ak yéen partout à travers le monde loi bi bëgguñu ko bëggaatuñu ko ngal la way fàtte len président Macky Sall ngeen xol askanu Sénégal de sa fait que sax ngeen def ko pour ñi nga xamanteni bëgg nañu len admettre pour que ëllëg ak ci biir ben sage du am ci sen kanam. ndaxte man ñii ñu jappol tay kep kuñ ci génné même suñ la amnistie amna ño ñoo na leen xolé bëtu terroriste wala bëtu criminel ñom ci seen bop ñoo wara a nangu ñu sétal leen ba paré nañu ubbi dossier yi ñu jugé ko au fond tay le cas ngañ dem ba Touré ngi nii entendre guñu dossier bi sax jusqu'au fond japp nañ ko yobbu ko sék ko sous mandat de dépôt ay greffier taxaw

su dee pee nga bëgg ak jàmm jàppal ni que yaa ngi xambataal boo xamante ni fañ koy fayee yow doo am ndoxam say député duñu am ndoxam kon waaye jël leen Sénégal ngeen fekk ko ci position ñi ngi ci jàmm nekkuñu ci crise nekkuñu ci génocide yéen jël sen responsabilité jàpp leen yéen jël sen responsabilité poursuivre leen yéen a jël sen responsabilité l'état du Sénégal yëkkati ay chef d'inculpation tek teg ko seen ndodd kon sénégalais xam nga lan lañ doon xaar ci yéen ngeen teg leen ci kanamu arté kay bi ñu arté leen ñu xamné ñom no def wala defuñu mais tay ni ngeen bëgg parax paraxé mbir mi amna luy ñuur ci soow li wax leen ko askan bi sinon yéen a ngi trahir seen peuple comme je le disais souvent politiciens yëpp yam politiciens yëpp yam je regrette. Heureusement comme je n'ai jamais défendu un politicien, j'avais défendu un président de la République. Parce que c'est un Sénégalais, je suis Sénégalais, il a été élu au suffrage universel direct. Donc la seule chose qui m'appartient, moi, moi, je respecte ce président de la République. Je suis xool ci aussi li baax ma won ko askan bi je suis mu def lu baax mi ngi fi tegu waaye def li a bon loo xamante mi ngi nii mooy loi d'amnistie te gëm naa ni bés bu ko defee fii lay xëyee génn ci xolu sénégalais ba illaa yow mi diina Ablaye Wade de génn na doonatul président sénégalais yi ñoo ko bëgguloon waaye ba tey ji xaru xolu sénégalais boo xoot xotti Ablaye Wade mi ngi ci waaye yaakaar ni loi d'amnistie bi moy tax Macky Sall genn ci xolu Sénégalais yi ba ilaa yawmi diin en tout cas muy projet de loi d'amnistie bi nga xamanteni président de la République Macky Sall voté na euh dévoilé na ñu ngi koy yóbbu fofu assemblée nationale député nak mbir mi dess na ci seen loxo ñun peuple sénégalais ñu ngi leen di xaar. Thank <laughs> you.